taalibe yi ci ndigalu sëriñ Mountakha Mbacké xalif général des mourides sëriñ Ahmadou Makhtar xalifa Darou Khoudoss sëriñ Moustapha Matiley xalifa sëriñ Bara sëriñ Moulay Mbacké xalifa sëriñ Balla Thioro sëriñ Khadim Mbacké xalifa sëriñ Cheikh Thioro comité de pilotage journée culturelle et religieuse Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ñoo am mbégte di leen digal seizième bi ñuy amal samedi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre 2023 ci Cissas ren ñu ko sëriñ Cheikh Thioro ak sëriñ Balla Thioro sunu baay Serigne Modou Mbaye Samb waaye baay balaa ma jox kàddu ki dafa am ay jàmbaar yu tabbi yónni ma ci Serigne Bassirou Mbacké Khady Awa ba gaynde baara El Hadji Dia bu Bambey di jàmbaari Cheikhul Khadim nee na jox na la juróomi nag jàmbaari Serigne Saliou ji taalibi Serigne Saliou bi sëriñ Momer Sylla nee na daaw joxoon na la fukki nag waaye ren da koy doublé jox na la juróomi million Serigne Bassirou Mbacké xaar ba gaynde baara Seydou tudd gi nga tudd lool neex na ma lool xam nga lu tax lu tax man lam yaskuri naasa man lam yaskuri naasa ku santul nit Mohamed sant naa la Alaaji sant naa la gërëm naa leen man awma lu dul bisu sëñ Baara ku ci jàppale yaa ngi may sotle ndax man sama dund Serigne Baara sama dee Serigne Baara sama lépp Cheikh Mamadou Lamine kon bu ma taxawalee bisam ku ma ci jàppale day wane ni sama cofeel ak yéen da koy wax ci kaw di ko wax ci suuf ja jërëjëf Mohamed jërëjëf Pape Sarr jërëjëf waaw mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu maa ngi leen di nuyu te di leen dimbali ci benn baat mooy cérémonie dafa bokk ak seere mi ngi xam naa micro yi dafa bokk ak seere mi ngi mel na ni nag tey dañoo nekk ci seere mi ngi Cheikh Mouhamadoul Bachir yaag sa bokk yépp nuyu naa leen ziyaare naa leen waaye day am loo xamante ni sama kilifa di sunu jëwriñ di sa xarit lool ba egg ci lool moom alxaaji mbakk yu fay mi toogal sëriñ Tuubaa ci ndakaaru ak li ko wër moo ni xam naa ndax Cheikh Balla Samb moom mi ngi ci kër sëñ Balla Coro waaye yow dama boo demee neel ma ndakaaru la tàmbalee yoof ba keroog ngay dem si bu xutaan luy daayira wala fédération bëgg na laa gis le vingt cinq fii ci CICES jëwriñ mbàkk yu nag nee na du ma yebal kenn may dikkal sama bopp ndax ana lu tax ko takkool la mu taq la lay takkal kon suñ demee ba nga xamante ni yow doo bàyyi sunu dara luñ nekk noog yow koy ànd day am loo xamante ni nag su amee yaakaar naa ni war nañ naa mën a am lu ñu wax kon Cheikh Amadou Lamine jëwriñ nee na ndakaaru la wax ak li ko wër yëpp bëgg na leen a gis fii le 25 ngir kan muy Cheikh Mamadou Lamine Baara ngir kan Serigne Bassirou Khadim Awa Ba yow yaay koo xamante ni man maa la tudde bëgg mbokk xool bëgg mbokk waaw bëgg mbokk laa ko tudde biñ demee gisuma sa benn mbokk boo xamante ni du yow taalal nga ko loxo mbokk diine mbokk deret nga taxaw tem ngir lan ngir dara a yàqu kon nag suñ demee ba ki dem rek sëriñ Abdoul Ahad mii mu sëriñ Mourtada mu Cheikh Abdoul Ahad gën a mbasam maamam moo ni yaa baax joo fekkiwut loo ko jënd jar na ko waaye yaa bon joo fekkiwut loo ko jënd jaru ko yow nag nit nga koo xamante ni dalal nga sunum xel mu sunoo gestu gis ku toll na yow ci sunu bis nga nekk ca loo xamante ni ñëpp lañuy seere ni yow mi yaa ko def kon nag dinaa la jox tey ñetti baat jërëjëf jaajëf ak jaajëfati jërëjëf benn yoon rek la ah. jaajëf da nga ko def defati ko mais jaajëfati ci nga dëkk yow li tubaab yi daan le respect de ces impératifs impose à chacun de nous des règles morales appelées devoir envers nous-mêmes ton amabilité ta serviabilité et surtout ta patience wala le portrait idéal de Cheikh Mouhamadou Lamine man Cheikh Mouhamadou Bachir Gaynde Baara ñu ngi lay siyaare bu baax a baax di xamal nag ni la li jëw jëwriñ wax ndakaaru gépp daañu ànd ak yow fii est-ce que xaj nañ fi looloo ma jaaxal ndax nag kaay ñoom ñëpp daañu ñëw fii ci CCS ànd koog yow ndax damay wax ni déedéet waaye damay wax ni mais avant première bokk tëg ko jël première avant première bokk tëg ko jël première yow mi yaay paye li nga def ci mbokk gi def ko ci mbokki taalibe yi ñëpp war nañoo mën a taxaw taalal la loxo kon daal mi maa ngi noonu bi ci desit xam naa liñ naan profité mënut a ñàkk le 5 janvier laa bëgg mur yi fekk ma Cees ñu am lu nu def suñ digganteeg yéen lool rek laa ci doon bëgg a dugal ndax lan tey nag am na ñaari mbégte sëriñ Saliou ture aw ma ko ñaar sëriñ Saliou ture aw ma ko ñaar mboolem fédération daayira i asaabu jëndati sama loxo lañ ko teg yaa ngi koy rendre hommage waaye ku ne xam na maag sëñ Modou Kara ba nuy ngóor si bay góor gi ba jur ngóor si asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa jërëjëf bés bango 16e édition journée culturelle et religieuse Serigne Bara Mbacké samedi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre 2023 ci 6 ku ci bëgg ay leeral jokkool ak coordinateur bi Serigne Bassirou Mbacké Khadim Awa Ba ci 77 635 01 71 77 524 53 27 asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu